dinaa ñëw ci loolu sax parce que am na benn jabaru colonel bu muy doxaan jox ko salaire mairie de Dakar ba pare jox ay doomam bourse jabaru colonel armée bu génn àddina jabaru colonelu armée bu génn àddina boobu dinaa leen ci defal live bu spécial boo xam ne Barthélemy Diaz dafa doon doxaan jabaru colonel bi ba colonel bi faatu colonel bi naqar boobu bokk na ci li ko rey jabaram ju rafet la takk xale bu ndaw Barthélemy Dias di ko doxaan di doxaan xale bi di ko doxaan ba colonel bi génn àddina Barthélemy Dias continuer ñi may xam ñi may déglu xam nañu li may wax mu continuer di doxaan jabaru colonel boobu jox na ko sax salaire ci mairie de Dakar ba pare jox ay doomam bourse doomu colonel yi te mu am sénégalais yu ko gën a yellool ci pays boobu la ñu nekk un pays de bandits et de délinquants mais nag du loolu rek moo bon du loolu rek moo nekk ci Sénégal ndax senegal boo xoolee aussi le doyen Cheikh Sène magi Pastef placé sous mandat de dépôt un doyen mag mag mag magi Pastef le doyen Cheikh Sène moom tamit jël nañ ko placé ko sous mandat de dépôt Cheikh Bara Ndiaye nag comme ni ma leen ko waxee bakkanam mi ngi ci xottu gerte alerté naa leen keroog keroog ba léegi nag amuñu ci benn saafara ba léegi Cheikh Bara Ndiaye ñoom mënuñu ko sax bàyyi mu ñibbi fi mu ne ndax li ma dégg ak état bi ma dégg la nekk nekkul ci position wu dox sax ñibbi këram falaa ba a yem pour le moment ça devient très très dangereux dans mon pays léegi nag boo leen xoolee aussi assemblée nationale bu Sénégal assemblée nationale bu Sénégal y a des députés ay députés yoo xam ne vraiment ils ont fait la fierté de notre pays ndax ndeke du ñëpp a bon ndeke foo dem ci àdduna bi am na ku baax am nañu Omar Cissé député maire de Rufisque ñu am aussi député Sanu John ñaar yooyu yëpp di ay député taxawu senegal ay député taxawu senegal laa wax di ay député xalifa Sall yoo xam ne ay patriote lañu ñooñu Ousmane sonk lañu àndal boo leen xoolee xool seen taxawaay ci assemblée nationale daf lay woon ne député yi c'est des patriotes seen taxawaay taxawaayu Sénégal la parce que xam nga nit du ñëpp a bon. man toog naa fii ay responsable PDS bu nekk New York bu ñëpp xam woo ma mu ne ma PDS ñu ngi diil mu tuddal ma Mame jaara Fam tuddal ma Nafi Diallo et consort man maa la wax lii une responsable du PDS ici à New York ma xam turam nag bu baax voilà une responsable du PDS mooma woo fii ci Amérique mu ne ma PDS na ngay diil ak Macky Sall mu tuddal ma turu Maam Jaara Faam tuddal ma turu Nafi Diallo ma ne ko man du ma ci yey duma ci yàbbi il faut ma am lu wóor lu may teg sama loxo balaa ma ciy wax te defe naa tey l'histoire nous a donné raison li nga xam ne moom mooy xew ci senegal ay doomu aadama mën a jàpp doomu aadama tey mu doon sa doom bu subaa mu doon sa noon boo jógee na nga ne ni ñaa ngi leen di saaga kenn saagawul kenn fii kenn saagawu leen fi dëgg bi rek la ñuy wax te yàlla tax doomu aadama naka ngay solee blouson di daw daw tout le territoire national ne Ousmane Sonko na ñëw jàppale leen na ñëw waxal leen fa nga xam ne foofu ngeen di campagne